الحمد لله الحمد لله alors depuis plus de un mois wala jàpp ñaari weer bi ñu nekk yëpp xam ngeen actualité bi lan la mooy ndam li nga xamante ne l'islam am na ko ndam li nga xamante Sénégal am na ko waaye ndam li nga xam ne aussi faydu bi am na ko tarixa Cheikh Mahammed Tidiane am na ko waaye surtout nag ndam li nga xamante ne le khalife général donc de Medina Baye Cheikh mohamed Mahi nias moom ibrahim nias moo ñu ko indil fii ci Sénégal ñëpp kontaan ci ñëpp ci bëgg ci ñëpp di ci waxtaanee alors moo tax Malikia TV mi nga xamante ne dara ñor ko lu dul diine dara ñor ko lu dul tarixa bi euh, daal ay euh, jóg ñëw fii ci nga xamante ne mooy Medina bàyyi ngir waxtaan si ak kilifa yi ci li nga xamante ne mooy jàmm jooju nga xam ne nemmeeku nañ ko fo ci diwaanu Soudan muy guerre bu yàgg boo xamante ne ñëpp jéem nañu të waaye nag moom Mouhamadou may Niass ba mu jógee rek yàlla defal na ko ci ndam euh, ñu sante ko yàlla bu baax a baax alors euh, bu ñu jógee nag ñëw ci dëkk bu tedd bi ngir waxtaan lu ni mel foog ñu waxtaan ak foog ñu ànd ak ki nga xamante ne mooy suñu kilifa jiite desk religieux bu Malikia TV muy le professeur Cheikh euh, Tidiane Kébé professeur asalaamaaleykum maa ngi aleykum salaam wa rahmatullah wa bu baax di la ziar di la delloo nuyu di am mbégte bu baax a baax ci ñëw fii nga xam ne mooy suñu kër suñu kër maam Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim Niass Baye ci képparu porte parole khalife bi di an naatuxu rasmi bismi khalifa di cheikh mouhamadul mahi Cissé ñu ñëw fi comme ni ko waxe ci ndam li nga xam nit ku ñul am nako ndam li nga xam ne am nako ndam li nga xam tarikhatu tijaniya am nako ci suñu bay al khalifa cheikh mouhamadul mahi ibrahim ness li nga xam ne defal nako aduna bi yëpp nga xam Nations Unies jëm nañ ci du tollok ñaar fukki at ci crise bu métti munuñu ko waaye moom ci diir yu gàtt comme ni nga ko waxee mu dem lijjanti ko loolu nag la ñu war a fas yéene waxtaanee ak suñu suñu suñu suñu suñu sëriñ. Mhm. suñu soppe di Cheikh Mahi Ibrahim si Ibrahim euh, Cheikh Mahi Cissé moom nga mi nga xam ne moo àndoon ak le xalif ci tournée boobu ñu fas yéene waxtaan ak moom ci mbir moomu. kon sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. donc comme ni ko ni ko Cheikh euh, professeur Cheikh Tidiane Kabe waxee tey ñu ngi fii ci Medina Baye ànd ak ki nga xamante ne mooy Mouhamadou Mahi Cissé le porte parole donc. donc de Medina Baye moom lañ ñëw fas yéene waxtaan euh, sëriñ euh, gannaaw ba ñu doon nuyoo di leen masawu coono bu baax a baax parce que gis nañ coono yëpp ñu ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi ñoo ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu di sant yàlla ci jàkkaarloog ñoom jërëjëf alors professeur donc question bi njëkk peut-être euh, mooy nekk euh, Serigne ban relation la Medina Baye am ak Soudan euh, relation Medina Baye ak Soudan relation diine lii la relation tariqa la waaye relation la boo xam ne mu ngi sosoo ci aji Baye bu njëkk 1937 Baye bu demee ci aj boobu daanaka aj boobu ci la ubbee àddina ndax ci la amee relation ak buur kën mu jàpp ci moom waaye ci la amee relation ak Soudan ndax xalifaam bu njëkk ci Soudan ñu koy wax Cheikh Abul Qasim Jineena nga xam ne Darfour googu la dëkk hmm. Jineena la zaawiyam nekk hmm. moom it ci aj googu la dajeeg Baye ci Medina Munawara bees lu ci moom tariqa tijaana mm-hmm. bàyyi jox ko lijaasa jox ko ndigal mm-hmm. ci aj googu bàyyi dajee nañ fa keneen ku ñuy wax Mahmoud Afandi mm-hmm. mu dëkk xortuum mu moom it mu jox ko lijaasa dajee na fa ku ñuy wax Sidi Mouhamed di sëti Cheikh Muxtaar ci ngiit yi nga xam ne moom it kilifaak tijaan la ci foofu bàyyi cosaanam waa Mauritanie la bàyyi jox ko moom it lijaasa Cheikh Abdul Qasim moomu nag mooy nga xam ne mom la bàyyi njëkk jox jox foofu ci 37 mu nekk ak mom ci aj boobu ba yàlla def 52 moy deuxième aji bàyyi di bàyyi ji ñib ci ci ajam gogu avion dafa wàcc jënee na moo tax mu ngi wax fofu ci rihlam bobu saritu tairan ilal xurtoomi bi nazaril maaduum kel mawjuud mawjuudu kel جئت جنينا وأتيت بورنو عيون أحبابي إلي ترنو boobu nag dafa wàcc jinee na rek Cheikh Abdou Qasim gis na futim ba mu wàccee foofu mu nekk loo xam ne boobu la ko bàyyi bindal ne ko moom mooy xalifaam sax Soudan mu nekk boo xam ne tasaare na fayd bi foofu ci jamono boobu gannaaw gi am na ay Soudanais yu fi ñëw am na ku ñëw Ahmed El Hanafi nga xam ne ci ëpp influence la ci Soudan tey jii daaw rek la génn àddina waaye doomam bokk na ci ñi teeru xalif bi ànd naa ñun sax ñi ñi ñëw fii ba ñëw ba ziyaare dellu koy wax Ibrahim mhm. kooku bàyyam soixante et ba soixante cinq la fi nekkoon fii ci kër Seydi Ali fi mhm. la tarbiya bàyyi jox ko lijaase moom it mu mhm. bokk ci nga xam ne tasaare ñoo waaye tijaaniya bu baax ci foofu am na ku ñuy wax Cheikh Bichara gisee teeru bi fi ñu teeroo sëñ bi ci fas yi noonu moom sey di Ali la dajewoon ak Màkka jox ko ndigal ne ko nañoo Medina bi muy ñëw fii soixante quinze yàlla def mu tardé ci am ci dëkk bu ñu ko téyee lu mat weer mm-hmm. bi muy agsi fii weer woowu ci la bàyyi génn àddina bi muy agsi Medina fekk na bàyyi génn àddina bi gannaaw semaine waaye moom it def na fi ab diir mm-hmm. am na Soudan yu bëri tamit foo xam ne jaar nañ fi mm-hmm. magi taalibe bàyyi tamit ci Nigeria daan nañ dem Soudan di dajee ñoom di fa jox ay nit hmm. relation bi nag mu ngi commencé ci dajeeg Cheikh Abdou Khassim boobu hmm. jënee na mu dajeeg bàyyi hmm. kooku borom may la woon ndax bi Cheikh maam Serigne Mbaye di aji tànd ak Seydi jaar nañ foofu waaye moom fekk na moom gisoon na leen seen yoon boobu mm-hmm. ba laaj leen ana Cheikh Omar ana Ousmane Ndiaye te ci këchfu rek la leen gisee mm-hmm. ñu ne ko Cheikh Omar mu ci yoon bi di ñëw Ousmane Ndiaye mu génn àddina waaw ñu mel noonu nag ñooy ñi nga xam ne ko mën a bàyyi njëkk am ci Soudan mm-hmm. waaye gannaaw gi bàyyi visité na Soudan ci jamono Jaafar Numeri soixante-douze waaye xurtum la am لجفال برام خام خامي من الشيخ مجزو مدسر من خامي وعليم لكي كل ما الطريقة بي بوكنا باي كي سند نحمون جل نشيط أحمد سويري ترال كو دفع قطبة أم صلاة جامعنا جوجو لوري تي بوكنا تلين خامي رانفورسنا علاقة بو بو بلي نك بو بلي علاقة بي نكونتني جدا في تجار تكلفي بريد من السودان على حياة الله إلى من السودان وكاتب عندهم لينجا شيخ محمد الأمين من السودان شيخ محمد المامون من السودان ده من في توكي بو بو بو بيا جسخ دافو نيا لمنياري ولا إيه لينجا شيخ حسن سيسة دمنا فا دمنا خرطوم يوم بينك mu nekk loo xam ne dafa ñëw ci jamono boo xam ne jamono dafa soxla sëriñ bi luñ ko ooyee bëgg-bëgg taalibe yi la mm-hmm. waaye àddina mu ngi tëddee noo xam ne fi ne mm-hmm. mënoo dugg ci benn dëkk lu may mm-hmm. autorité yi dañ dañ lay yombalal ñoom it ñu jël tukki bi def ko seen mbir ndax xam nañ ne soxla nañ ñëwam foofu xam nañ tim euh, taalibe yi nekk foofu nan lañ mel ndax bañ dajeeg président président daf ne sëriñ bi yéen ngi dem Darfour suba. Hmm. waaw mu ne ko yéen a ngi dem ci dëkk boo xam ne am ngeen fa mbooloo yoo xam ne dañ leen a bëgg di leen di dégg. waaye nag am na fa nit ñaa ngi am ay fitna ci seen biir ba nga xam ne léeg-léeg nit rey nit sax ne boo ko waxee mu ne dama doon jënd ci poosam te yàlla dafay rey nit te du soxlawut ci daal. waaw ñooñu daal dañ leen déglu da ngeen wax ak ñoom. Hmm. Hmm. yàlla def. biñ demee avant ñuy dem sax am ay waxtaan yu ñu def. ci biir foofu. nga xam ne yëpp rek. ñun ñu ngi ko teg ci cadre innamal mu'minuuna ixwatun wa aslihu bayna axawaykum wattaqullaaha la'allakum turhamuun jërëjëf ci cadre yi yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax masalul mu'miniina fi tawaddihim wa taraahumihim ka masalil jasadil waahid yashtakaa min udwin tadaa'araa wa saa'irul jasadi bis-sahari wal humaa meloo jullit ak jullit dafa war a mel ni benn yaram lu ci métti rek leneen lépp yëg ko moo tax ñu ne leen loolu moom la sëriñ bi dund ba nga xam ne gis na ne ñun ñu ngi am jàmm ci Sénégal suñu mbokk ci Soudan amuñ jàmm dañuy ñëw fàttali leen li nga xam ne nii mooy mooy sauver nit ki ndax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg mooy mun xisil bashariyati kon delloowaat nit ñi ci jàngale yonent bi delloowaat nit ñi ci alquran mm-hmm. delloowaat nit ñi ci taalim mm-hmm. Cheikh Ibrahim nga xam ne pare na terrain bi foofu ba nga xam ne koo gis xolam bi mën naa jël lu jugee ci yàlla man naa dégg waat ndax ne la leen taxaw idaa massahum taaifu mina sheytaani tadakkaru fa idaa hum ko ragal yàlla du tere seytaane man koo laal waaye bu ko seytaane laale rek ci saa si dafay fàttaliku rek gisaat yoon yellu mm-hmm. ci dëgg kon mu ñëw pour fàttali leen yoon woowu waaye mu fekk nit ñoo xam ne nit ñoo xam ne bëgg nañ mm-hmm. li nga xam ne mel na ni seen lisaanu xaal mu ngi wax ni ibnu Farid waxoon hmm. nasabun aqrabu fi shar'il hawa na hmm. min nasabin min abaway hmm. ñoom ñëpp seen lisaanu xaal dafay wax ne maa ngi bokk ak ñii mbokk gu jege goo xam ne dafa mel ni moo gën a jege sama mbokk ak ku ma bokk ak ñaari wàjjur loolu lañ dund tukki boo xam ne daafur fu yaatu la waaye def nañ fa gannaaw def nañ fa semaine mhm. ndax dem nañ jënee def fa semaine mhm. def nañ fa ay jotaay yu bëri ñi sëriñ bi ñu ànd ak ñi ànd ak jugee fii ñi jugee jugee Nigeria ñi jugee Burkina Faso ku ci nekk rek nekk ñoo xam ne wax nañ ko ne ko boo xuusoon géej gi te ñu xuus géej gi ànd ak yow mhm. eh, loolu ak eene ziyaare ngir yàlla ndax man wax naa waali jënee ne ne ko mbooloo mi am na ci ñoo xam ne doy na leen ci ziyaare bi ñi ñëw

ndax bàyyi dafa wax ci woyam uzilu xilaafan bayna qawmi muhammadin wa yajcauna tawxidu fi kulli mawdii wa namshi ala nahji l amini sawiyatan mutaabiahu wal kullu jiddu mutabain mu ne damay dindi uute bu nekk ci nit yi yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam uzilu xilaafan bayna qawmi muhammadin tawxid booleñ ku tawxid yàlla booleeg nit amul dara lu gëna for lo xamne xam ne war na laa tasaare ak ñom kon buñ oyé nit ñi ci cadre tawhid am nañ lu lu reuy lo xamne mën nañ ci jàpp. tawhid bobu ñi am ci sunnat muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax moom baye bañ ko laaje ci hadafi hadafi daawaam. bok boole na ci ne ta'miq ash shuur bil ukhuwa al islamiyya dégg fexe ba julli ñi yek mboko giñ mboko mu ne tahta hadha tahta dhilli hadha taaxi dégg nga. ci la nit ki demee ba nga xam ne dana passé passé xabaliya passé ansuriya passé sulaaliya dégg nga mhm. loolu mooy yaram mhm. yar boobu nga xam ne waxoon na ay taalibeem ci Mauritanie ci benn xadis mhm. ne leen man damay wax ne fekk ënd naa nu fi suri indana dafa melni ñun dañu wal bufta bi ci ñun ba pare te yàlla wax ne bay daa nu fi suri bay daa nu fi suri wala ansa baynahum yawma idin wala yatasaalu buñ walé walee bufta bi askan yi amatul nit ki nak bu démé ba yëg ne noonu la jégué yow li ngay wax da da fay fay da fay dugg ci mom rawatina borom xam-xam muy wax ak mom dégg nga ak ko xamne limi wax ak yow daf la ku la bëgg di wax ak yow bo xamne xam na fu muy jaar ba indil la min maïn saafi indil la ci alquran ndax turaas bi benn la ñoom ñëpp a ngi ko amee ñëpp a ngi ko amee xam nañ ko waaye nag ñëw waraat jullit ñi فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لول مو مودون آه، ميساج بي تيم ييب داف نان تجاوب اك لول فك نان طريقه تجانيه دافور ييب دانك طريق تجانيه واي حاكم منا نانيو 75% ييب طالب الشيخ ابراهيم ما شاء الله آه. لول نك yombal na yëf yi ndax kii wax astaghfirullah di wax laa ilaha illa di julli salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam boo ko ooyee ci taalim rasulillah mën na koo dégg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran daf ñuy wax ne laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana am ngeen royukaay bu rafet ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye pour kan li man kaana yarju llaha wal yawmal axira wa dakara llaha kasiira gëm yàlla gëm alaxira di tudd yàlla lu bëri kon kuy tudd yàlla lu bëri moo gën a am chance pour mën a roy ci yonent bi ci ki gëm alaxira gëm yàlla gëm alaxira te tudd yàlla lu bëri loolu nag ñooñu nga xam ne loolu pare boole na leen. moo moo bokk ci li nga xam ne moo dimbalee euh, lii gannaaw gannaaw mbaax ak yàlla tabaaraka wa taala bés ba ñuy waaj ñëw. Mm-hmm. Euh, ki nga xam ne moom mooy gouverneur yi junee na bi ñëw na xaartum mm-hmm. tàggoog sëriñ bi bi mu paree mu ñëw su ma nekk ànd ak bàyyam ne ma daal li ma lay li ma leen di wax mooy ne maanaam directeur police eh, jënee na ci daafur foofu daf ko wax ne ko bët bu set daanaa am téeméeri cas dégg waaye ba ziyaare bi amee ba léegi aw ma benn loolu yëpp li mu tegtale mooy eh, njëriñal barke ziyaare bi dégg nga xabile yi nga xam ne tamit ñoo doon xeex ñi nga xam ne ñoo ci ëpp doole muy misaalika ak arab yi ñëpp ñëw nañ ci sëriñ bi ñëwee mu wax bàyyi ñi mu ànd ak ñoom ñuy wax ñoom ci ñuy wax seeni wax mais li ko yombal mooy masaalik bi yi nga xam ne moo leen moo moo leen jiite ba mu ñëwee bañ koy présenté dañ ne kii bàyyam taaree bàyyam te moo nodd ci jumaa ji nodd na ci jumaa yi eh, jënile bi juróom fukki at moom def ne sëriñ bi man sànni naa ngànnaay dootuma xeex te li indi suñ problème mooy nit dafay joteeg ci xabila bi mhm. waaye kuy fayeeku du xalaat ne benn nit moo tooñ benn nit mhm. dafay jàpp ne xabila tooñ xabila mu dem fayeeku mhm. mu ne man bés ni ki tey ku tooñati ci sama xabila maay jàpp ci loxoom yóbbu ko ci yoon macha allah ku ñu tooñ ci beneen xabila bi itam dañ koy déclaré mm. te ñeneen ñi itam nañ def ma mm-hmm. dégg nga mm. keneen ki itam ba mu ñëwee bañ koy mm. présenté dañu kii kii moom célébrité la waaye ki ko présenté daf ne kii bàyyam sama xarit la te bàyyam tijaan loon kon yooyu yëpp maanaam rabita boobu nga xam ne moom moo am moom moo gën a yombal waaw moom moo moom moo gën a yombal déggoo bi gën a yombal gisante bi te fu ñu fu fu fu fu mu wàcc rek mbooloo mi wàcc da ngay gis ne daf ñuy fàttali rek li li bàyyi waxoon dégg nga ba kullama jina al mahatta tazunnu an xalla bihim zu xutta ci yoonam bi gaana mu ne bu ma mahatta bu ma wàcc rek da ngay foog ne sax yonantu moo wàcc ci ñoom waaye xam nañ ne boobu ñoom ñi ngi dund ne waaris Muhammad yi moo wàcc ci ñoom loolu tim loolu lañ gis ci tukki yëpp mu nekk loo xam ne dëgëral na relation Sénégal ak Soudan ndax waaye dërgëral na jullit ci Soudan ak jullit ci senegal mhm. mu nekk ndam loo xam ne tim senegal yëpp ko moom. Mhm. waaw Tijaan yëpp a moom. Mhm. Murid ñoo ko moom jullit ñëpp ko moom. te Sénégal tim dëgg-dëgg noonu lañ defee te jaawu ak mbir mi. ndax bi sëriñ bi ñibbisee biñ ñëwee. dafa mel ni ba léegi ñun ñu ngi Soudan. mel ni teer yu daan ngi moom lañ fekk Sénégal. yëpp nag Sénégal yëpp booloo. loolu lu dal la. dama wax kenn ci oto bi ma ne ko ah. nit ñi daal ni ñu nangoo jëf ji nii mhm. man dama ciy gëmee ne yàlla mhm. gërëm na ko mhm. waaw ndax ma ne ko Fadil bin Iyad moo doon wax ne mu ne mu ne bu ma uuteeg ndigal yàlla danaa ko gis sax ci ci ci sama daaba bi sama mbaam mi may war sax danaa gis moom mu uuteeg man danaa ko gis ci sama ci sama soxna waaw kon nag euh, di dox loo xam ne ngërmaande yàlla lañ ci ngeen addina yëpp taxaw dégg nañ sëñ Maodo doom yi Dabakh Cheikh euh, Abdoul Aziz mhm. dégg nañ wax bi mu wax dégg nañ euh, Cheikh Ahmed Ahmed Badawi bi mu mhm. wax mhm. ak ñeneen Sénégal yëpp ku moom parce que dama wax benn nit dem ma ne ko sëriñ bi dafa demoon tukki pour defar dara waaye ba mu tukkee di bi yëpp dara yàquwut ci Sénégal ñi toogoon Sénégal ba dara yàqu mhm. ñoom it ñoom moom ndam loolu fekkoon da ngaa dem ci biti di defari ba nga ñëwee fa nga bàyyoon yàqu mhm. kon yow de waroo dara ndax fi nga gën a jege moo la gën a war mhm. waaye am na ñu nekkoon Sénégal tax dara yàqu waaw am na ñu nekkoon Sénégal dara yàqu moo tax loolu ndam li ñoom ñëpp ko moom ndam li lislaam moo ko moom jàmmi jullit ñi tamit lislaam moo ko moom masalul mu'miniina fi tawaadihim wa taraahumihim liggéey Cheikh Ibrahim li moo doon dundam wal tajmaul ayaamu qawma muhammadin ala nahjihi kay nastariha min alxamsi ndax bés yi danaa dem ba boole ummatu muhammad ñoom ñëpp nag sallallahu alayhi wa sallam ñi nekk ci yoonam bi boobaa ñi noppalu ci caaxaan yeeg naxante yeeg yooyu mooy lii rek te dëgg-dëgg ziyaara bi dem bi wane na loolu waaye ñëw bitim wane na xarxana mi Sénégal boo xam ne ndekki Sénégal bu nekk mu ngi taxaw di wax ne lii sama ndam la président noonu opposition bi noonu euh, rawatina nag euh, kilifaay diine yëpp taxawee taxaw bu mel noonu te mhm. noonu lañ amee tajaawub ak Soudan ndax bañ demee bañ gisee kilifa yi ñii nga xam ne ñooy autorité yi mais mhm. terewul ne opposition bi sax ñëw nañ ñoom ñu si sëriñ bi mhm. wan ko ne seen yoon bii kontaan nañ ci wax niñ niñ niñ kontaanee ba pare loolu yëpp mhm. euh, mu am tim ay tombé yu rafet mhm. ndax mhm. euh, diir bi ñu fa nekk sax seen couvre-feu bi ci lañ ko yëkkati loolu yëpp barke euh, man dama wax benn ki ma ne ko mission bi ñaar rek la ñëw def daawa mhm. do ila sabi rabbika bil xikmati wal mawizati al xasana mhm. li ci des nag mhm. loolu mooy mu ngi ci sa loxo li nga ci mën nga def ko li nekkul ci sa loxo mooy ñaan ñi ngi tàllal loxo yi yàlla di ko ñaan pour jàmm yi te loolu gis nañ ci ay mubashiraat yoo xam ne nii daf ñuy bégal ñu ngi ñaan yàlla yàlla saxal saxal loolu lawal ko def jàmm ci eh, alam islam yëpp def ci àddina yàlla tim defal ñu jàmm ci Sénégal xam ne dañ xam ne eh, jàmm la bëggeel gii nga xam ne dëgg gis nañ ni mu feesee xol yi la làmmiñ yi wax ko loolu itam dafay am dafa ñuy dolli yaakaar ni Sénégal yi ëllëg jëm ana yàlla defal loolu شكرا عزيزنا لضيق الوقت او في الكتابه نبشر نريد آه، بكلمه باللغه العربيه الحمد لله نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره نستبشر بكم بكلمه تلخص من هذه المهم الرحله المهمه نعم. مما فيها من العمل الجليل مهمة هذه الرحله كما قلت بالالوفيه نعم اننا سافرنا الى السودان مع الخليفه الشيخ محمد بن ابراهيم ياسر نعم تلبيه لدعوه الاحباب والمريدين نعم. وبرعايه من الحكومه السودانيه نعم وطلبوا ايضا من الشيخ نعم. ان يتدخل في نعم. حل المشكلة نعم. بين القبائل نعم. التي تتناحر منذ عهد قديم نعم. ومن خلال هذه الزيارة ومن خلال دعوتي إلى الله تبارك وتعالى وتوعيتهم أننا نحن الله تبارك وتعالى قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قرب هذا نعم. إلى أذهان المستمعين طبعا. أن الله جعلنا مختلفين قبائل شعوبا نعم. لا للتناحر نعم. ولا للتقاتل بل للتعارف وهذا الاختلاف لو استغلناها كما ينبغي كان ثراء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتجاوب معه نعم. كل أطياف السودان السياسيين وغير السياسيين نعم. تجانين وجميع المتصوفين كلهم اجتمعوا طبعا. باستقبال هذا الخليفة بحفاوة واحتفاء بكل ما جاء به لأنهم أيضا يعرفون أن الذي زارهم من سنغال أخ في الله تبارك وتعالى ما جاء إلا لمحبة السودان في قلبه وتجاوبوا معنا في هذا الله تبارك وتعالى وفق وفق الكلمة بين هذه القبائل التي كانت تتناحر فيما بينهم والشيخ أيضا وفق لإرساء قواعد السلام والمحبة بين هؤلاء القبائل أرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويوفقنا لما يحب ويرضى أيها المشاهدون الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم معنا اليوم في مجلسنا المنور بسيادة الشيخ حبيبنا حبيبنا

télévision bi mhm. kontaan tamit ci tur bi nga xam ne Malikia la mhm. loolu làmboo lu bëri mhm. loo xam ne dafay doon suñu yaakaar mooy ne lislaam ko moom mooy ne tariqa bi moo ko moom mooy ne umma bi moo ko moom mooy ne insaan yi moo ko moom jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci turu Alhaji Makhtar Ngaye ak mboolem waa Malikia bi